jërë ngeen jëf mbokki internet allo ah, man mii de su ma gémee su ma gëmee ni la ca maam koy jël jëmm ji ngeen di gis muy dugg see tax ndax moom moo doon turandoom ba waaye moom moo doon ay maamam moom mii di sëriñ Saalix Mbàkke jël na ay jikkoy turandoom waaye tamit donn na maamam ba mat sëkk di sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke waaye donn na maamam sëriñ Sidi Mouhamadou Lamine Baara donn na ndax ci jëf ci wax ci xam-xam gu yaatu ba waaye tamit xam-xam bu sell sëriñ Saalix Mbàkke dañ koo seet si tey ndax mi ngi waajal màggal gi mi ngi waajal màggalug maamam gi di sëñ Sidi di sëñ Sidi Muxtaar mi nga xamante ni ñu ngi koy amal douzième jour koor gi chaque fois ñu koy waajal nag ak taalibe yi ñu koy waajal nag ak bernde yi waaye nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci actualité gannaaw xam-xam gannaaw laabiir waaye tamit gannaaw njariñ gi nga xamante ni mu ngi ci sëñ Saliou mi actualité dinañ ci xuus ndax mënta ñàkk ndax dafa di doomu daara yor daara di jàngale ñu yëg ni kii di Mame Mbaye Niang li mu laaj ci 200 millions yi mu bëgg a jëlee ci Ousmane Sonko ak wala sax mi ngi laaj lu ko ëpp du ko yóbbu ci njabootam du ko yóbbu fenn waaye nag da koy jox sëriñu daara ja ndax du sacrifice ndax du leneen ndax du dafa jàpp ne alal ji dafa lewul moo tax mun da koy yóbbu ndeyu daara da koy yóbbul daara yi sëriñ bi dina ci def ay révélation ndax sëriñ bi tey xolam neexul waaye màggal gi moo tax tey dina xam ni mu ciy waxee sëriñ bi nañ waxtaan ak moom ci avocat wu Ousmane Sonko bi nga xamante moom lañ naan moom lañ naan Branco nee na dafay porter plainte Macky Sall waaye ndax dañ ni koo xamante ni respecté wul sa njiitu réew du la respecté sëñ bi dina def ay révélation dina ci indi ay leeral waaye tamit sëñ bi wax xam dina wax tey avenir Ousmane Sonko ci politique gis na toog na lu yàgg fii nii gis li nga xamante moom mooy procès bi Mame Mbaye Niang Sonko Ousmane Sonko Adji Sarr sëñ bi di ko jàng rek tey dina génn nag waxtaan ci tey dina tey la sëriñ bi close débat bi waaye balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëriñ Saalix Mbàkke mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi leen nuyoo di leen ziyaar di leen baal xaq te di leen baalu xaq di sant di ñaanal suñu maam ju baax ja Cheikh Sidi El Muxtaar moom mi nga xam ne suba tombeek fukki fan ak ñaar ci weeru koor yi moom lañ koy màggal di ñaan fépp fu doomu aadama nekk wala fépp fu yu ab jullit nekk lépp loo man ci ñaan nga ñaanal ko lépp lu mu liggéeyal sëñ Tuubaa sëriñ bi fay ko ko ci barkeb ki gën ñëpp muy Seydina Mohamed duñ fàttali ñi itam nga xam ne caabi dañ leen féete ginnaaw ñu ngi leen ñaanal suñu borom weeru koor yu ñu nekk képp koo xam ne caabi féete na ginnaaw suñu borom dogal ñu ñu génn la foofa te la la fa dugaloon bañ la faa delloo ak ñëpp képp nga xam ne dafa tëdd ci lalu hôpital yi ñi ngi ñaan suñu borom fëgg boppam ba lépp lu ko daloon mu wér ci barkeb ki gën ñëpp ñu ngi ñaanal tamit metti metti yu dëkk bi suñ borom neexal lépp man na ko te xéewala mi jaam yi rek la koy jox fàttiwuñ la ñoom tamit di baalu ak ñëpp nag ci weeru koor wi di baal ñëpp àq di ñaan suñu borom taw féexal senegal ci barkeb Serigne Touba jërëjëf. jërëjëf sëriñ bi euh, dugg si bi am na solo waaye nag euh, mënuñoo ñàkk ñëw ba fii di waxtaan ak yow. te ubbeewuñu li nga xamante ni moom lañ daan faral di ubbee ci yow muy listixaar ndax mel nga ci noo xamante ni fii ci tuubaa nga dëkk ñu bëri xam nañ ne bu ñu amee lu fuñ lu ñuy dëgmal dañuy ñëw ba fii ne la nag sëñ bi foog nga listixaaral ñu dañoo bëgg nag tey nga waxtaanaat ci listixaar sëñ waaw listixaar dafa nekk loo xam ne dafa am solo ndax euh, nit ki lépp lu muy dugg da ko war a xool ñu defal ko listixaar ndax euh, mu xam fa mu jëm ndax nit ki lépp loo xam ne xamoo lu nekk sa kanam wala xamoo fa nga jëm mooy lan lu si ëpp boo si duggee da ak ak njuumte la lay indil ak njuumte la lay jural moo tax day baax nit ki bala moo dugg si dara ñu les xaaral ko bu jaree mu génne ay sarax mu génne sarax euh, bu jaree ñu defaloo ko dara ñu loo ko loola ndax dina waral mbiree yomb te dina si duggee jàmm dina si génne jàmm ndax euh, li si xaar mhm. euh, kilifa yu mag yëpp dañ ko daan def nit ñu baax ñu mag ñëpp dañ ko daan def moo tax lisxaar képp koo xam ne ab jullit nga wala képp koo xam ne doomu aadama nga bala ngaa dugg si dara war nga ko lisxaar mhm. te ñun lisxaar suñu borom dafa dogal dafa am lisxaar dañ see yor lu bari mhm. ndax nit mën nañoo woo ñu fanaanoo ko lisxaaral ko mhm. nit mën nañoo woo fi ñu taxaw ñu xool ko ay mbiram wax ko li muy def nit tamit mën nañ koo gis mu jàkkaarlook moom ñu xool ko ay mbiram lisxaaral ko wax na ko defal nangam nangam moo tax lisxaar lu si ëpp nag moom dañ koy fanaanoo waaw am na si yoo xam nag du listixaar seet lay doon. waaw seet nag euh, ñun moom suñu moom dafa dogal ne mm-hmm. lépp luñ seet lu si ëpp dañ koy gis. Mm-hmm. waaw moo tax daanaka du ma wax seet sax gis dañuy gis la ñuy wax. ndax kuy seet mooy kuy làmb dara loo xam ne xamoo fu mu nekk. moo tax daanaka euh, ñun moom dañ koy gis bu baax a baax te yaakaar naa képp koo xam ne jëflante nga ak ñun ci mbirum seet ndax seet ak listixaar dañoo xaw a bo dañoo xaw a nuroo waaye bokkuñu. Mm-hmm. waaw listixaar ak seet bokkuñu ndax seet la la fa mu nekk nga laaj ko la nga koy laaj mu wax la lam lay wax nga teg nga indil ko ay tegtal yu baree bari ne ko nanga mu nanga wax ko lu nekk ca moom moo listixaar nag bokkul listixaar bu ñu ko bu ñu ko nit waxee dañ koy jël jël turam moom bu defee dañ koy mën a wax ne ko nangam ak nangam lii nga dugg dina baax wala du baax waaw listixaar mooy boo dugg si dara da nga koy laaj ba xam li may dugg dina baax wala du baax seet nag mooy nit ki laaj la li nga xam ne euh, dafa nekk si kanamam wala mu am njàqare am tiitaange ci boppam woola ne la damaa bëgg nga seetal ma nangam nangam nangam seet nag am na ñoo xam ne dañu seet waaye ñun nag suñ borom dogal na ne duñu seet gis waaw kon loolu ak tawféex la te képp ku ko seqal xam nga ne loolu moom suñu borom tawféex lañ na ko du suñ man-man du suñ jàmbaar tawféexu tawféexu suñu borom la waaw nit ki nag am na loo xam ne doo bàkku da ngay sant yàlla mi nga xam ne moo la may loola ndax gënoo fi mënoo fi loolu nag bu la ko suñu borom may ak tawféex la ak ak ak cant kon ñu ngi koy sant bu baax di ko taw fi di si taw feex gi ñu may si seet ak li saxaar xaar. waaye sëñ bi maa ngi la koy wax sànq ne la man dag maa jaaxal ndax cangat cangatu ubbeeku yi nga xamante ni yaa ngi koy joxe chaque jour mën naa ni nga joxe ci joxe joxe te bu ma xëyee da nga ciy gën di joxe sëñ bi cangat gi nag am na loo xamante ni sëñ bi waxoo ñu ko de te te ngi ci cangat gi. <laughs> waaw waaw cangat gi de euh, dafa nekk loo xam ne euh, xam nga jamono dafa metti te wërsëg yu su baree bari dafa taxaw euh, te yenn bagage tamit day xaw a jafe ci nit ñi moo tax lii nii cangat gi euh, dafa am solo maanaam biteel bu ndaw bii ngay gis euh, defar na defar nit defar na nit ñu baree bare bari mën naa ko def ci biteel bu ndaw bi mën naa ko def ci biteel bu mag bi ndax ñaari façon biteel la waaye benn bu si nekk la muy def ak la morom ja def la waaye bii nii nga gisee nii ni mu ndawee nii mhm. noonu noonu noonu la solo sa bëree fu nekk nag lay def nekk nag lay lay dem ci àdduna bi ndax dafa nekk euh, cangat dafa nekk dafa am solo ci doomu adama ndax nit ki bu da ngay jaxasoog nit ñi ak liggéey ak def nangam nangam mën ngaa taq day baax ngay sangoot ngay ngay def ay cangat ndax cangat dina yombal nit ki jëflanteema ak nit ñi ndax tey bu dee fukki nit a bokk dendee place yow ñëpp di weesu ñëpp di ñëw si yow di jënd loolu cangat da koy def mm-hmm. bu dee da ngay da ngaa bokk ak téeméer nit ñu dem di liggéey ñu sepp si kenn jox ko dara muy mu raw si loolu càngat da koy def. Mm-hmm. day dëppoog nag léeg-léeg euh, ndogalu suñu borom waaye lu si ëpp ëpp càngat càngat day def loola. waaw càngat nag boo ko defee dina tombe dina dëppoog tamit ni mu borom ñaar yëpp na waaye nag càngat day tax suñu borom lam yor da koy may da koy maye. te lam yor doomu aadama rek la koy may man naa programme ne kii kat lii ak lii ak lii laa programme ci moom. cangat yi ngay def ak ñaan yeeg sangu yi mooy tax suñu borom di wëlbati loola defaat def ko mu nekk la gën ci yow moo tax cangat ak sangoog yooyu dafa baax lool lool lool te bideel bi day indi bayra si kuy ñaan ku kuy jaay mu taw a jar kuy jaay kër wala kuy jaay oto walla koo xam ne da ngaa nekk foo xam ne da bëgg a siiw ak yu demee ni ki noonu moom cangat gi lool pour pour pour loolu la ak sax jigéen yi nga xam ne amuñu bayra léeg la nga gis jigéen koo xam ne day mel ne euh, te ngay gis jigéen koo xam ne day mel ne euh, mam bu sas mala yooyu bu defee ñoom en général euh, dañuy toog lu mat ay ati at duñu gis sax ku leen ne nangam a nangam mm-hmm. dañuy ñàkk bayra lool waaye nag léegi boo boo leen joxee euh, lii nag buñ ko sangoo cangat yi dana tax ñu am bayra mm-hmm. nit ñi di leen tudd nit ñi deen leen ñuy àgg fenn fi nit ñi di bàyyi xel ak yooyu moo tax càngat dafa am solo lool ci doomu aadama waaye sëñ bi dama programmé ni daf ma lay dama lay seet si am ku ma ci waxtaanal mu ni ma ma ne ko Serigne Saliou laay seeti mu ni ma Serigne Saliou borom tawféex bi ñu waxtaanee ndekketeem sa ndomba ak tawféex gi la la la la sukkandiku rek ngir tuddee la Serigne Saliou borom tawféex ndomba gi nag <laughs> keroog laajoon naa la ci nga di doo ci wax tey di nga ci wax nag sëñ bi ndomba ak tawféex gi. tey moom naa la ko may ndax xam naa ndomba gi moom ñor na la. waaw xam nga ndomba gi maanaam boo dee xool bokk naa si ñu fi jëkk a joxe ay ndomba moo tax damaa mujj dem ba mujj yàgg dama ko mujj bàyyi di ko wane si télé yooyu ndax euh, yaakaar naa boo xoolee euh, dernière vidéo yu bari si la gars yi koo gis mu génn rek day wane ndomba am naa ndomba am naa ndomba te boo xoolee sama vidéo yu njëkk ya ba may def ndomba nga xool jamono ji ñu doon def amul kenn koo xam ne daan nga kii waaye nag mbir nag boo demee bu mu bëri ay jaxasoo ay da ngay bàyyi loola la ngay def nga def nga koy def suuf bañ ko waneeti ndax ndomba gi dama ko doon wane ma gis ñoo xam ne dañ siy defar ndomb yu bari di ko joxe naan ndomb ak sëñ Saliou tawfeex ndomb ak tawfeex ndomb ak tawfeex fekk na loola te man fasuma yéene mukk mukk mukk mukk lekk ak damay bëgg lépp loo xam ne ki jox na ko ne sëñ Saliou la jóge bu ñëwee bu ñëwee ci yow mu jógee ci man moo taxoon ndomba gi dawuma ko nu wane ndomba gi nag mi ngi nii juróom-ñaari gaw lay doon yii ne yii ne tamit du wax ndomb ndomb de pétaaw yi si nekk la nekk sa biir tamit du ma ko wax waaye ndomb gi daal ni mu ni mu mel mm. ak li muy dimbali ci doomu adama doy na war kuy wut kayit mu taw a am koo xam ne fépp foo dem ñu dàq la mm-hmm. koo xam ne mënoo toog fenn koo xam ne loo dugg mu yàqu. koo koo waaw koo xam ne loo dugg mu yàqu. ak koo xam ne dangay wuti lool waaye doo doo am dara ak koo xam ne dañ lay tumuraankeel fa ngay ne fa fa fa nga nekk ak koo xam ne euh, lépp loo loo dugg wala loo wax dañ lay xeeb ca loola ndomba gi ci loolu lay ci yooyu lay dox day siggil nit ci biir nawlem day siggil nit ci biir njabootam lépp loo dugg boo takkee ndomba gi di si génn lu mu mën doon nag. lu mu mënti doon boo takkee ndëmb moo tax ñu naan ko taw waaw li mu mënti doon laa la wax boo tëjee juróom-ñaari gaw yi lu mu mënti doon da siy génn waaw maanaam amul kenn koo xam ne ndomb gi amul kenn koo xam ne di nga ko takk di di gis di lañ la si wax nga nga kii ko te sax boo ko takkee bu sa deret tàngee dëgg dëgg dëgg nit bu la jamee paaka du dugg boo ko takkee bu sa deret tàngee dëgg dëgg dëgg boo toogee si si boo téyee weñ day lemu ngir ngir ndomb gi eh, dafa ànd ak tul Mm-hmm. moo tax ñu moo tax ñu naan kon doom ak tawféex mm-hmm. dañ see dañ see boole lu baree baree baree bari mm-hmm. dañ see boole lu baree ba moo tax nag ñu baree bari di ko wër ñu baree bari di ko kii waaye nag dafa am limite dafa am doom benn nombre boo xam ne bu ñu ko joxee bu jeexee rek jeex na duñ ko yokk moo tax ñu naan kon doom ak tawféex gi la ilaha illa allah ñi koy rang nag xam naa ni bari na lool lool lool looloo tax sëñ bi du faral di ci génn di wax ndax day bañ ku nekk jot ci te ku nekk dégg ko te ñëpp du cee jot loolu lay bañ moo tax nomb ak tawféex gi daal ku ci ku ci am mën naa ne sa sécurité garantie nañ la ko am na lenn loo xamante ni nag ñu ko bëgg yépp fii la ñuy daw si wut ko am na ñoo xamante ni dañ koy jëlee fii di ko joxewaat muy fas gi fas gi nag sëñ bi ñu ngi ciy wax lu bari waaye sëñ Saaliw sëriñ Saaliw ah sa fas gi yéeme na de. <laughs> ah damay toogaat damay toogaat sax damay toogaat xam nga fas gi moom damaa dem mu jàng dama koy bañ a wax sax. man maay sa nattu nag man nag kii maan la kay kii maan la kay xam nga man fas gi du ma ne nag fenn laa ko jëlee du ma ne kenn naka ndax xam euh, loo xam ne euh, boo demee ba si def résultat yi jërëtul fii laa ko jëlee kee moom ko jox kaa ko jox waaw ndax am na loo xam boo fa bokkee jërëtul ngay mm, wax naan fii la jógee faa maam waxal rek te ka nga koy jox mu gis njariñ la man loolu moom si ëppal solo mhm. képp ku takk fas gi gis njariñ li war naa si yàlla ne bu ma ñett nit woowoon ne ma fas gi gisuma njariñ la du ma ko du ma ko joxeeti ñett nit bu ñu ma woowoon ne ma gisuma njariñ la ko joxeeti sama fas man man sëñ Saliou waxuma nag ñu jox la keneen fas waaye man sama sëñ sëñ Saliou sama fas fas gii may joxe bu ko ñett nit wala ñaari nit woo bu ma bi la nga ñu waxoon ci fas gi gisuma ko du ma ko joxeeti wallaahi te tey jëlal jël jëlal sama sama ñoom ñëpp am nañ ko na ma ñett nit woo wax ma loola kon fas gi la may wax mooy mënoon naa mënoon nañoo def sunguf am na ñu bëri ñoo xam ne sunguf la ñu joxe ak yooyu te sunguf dañ ciy rax dañ ciy rax lu bëree bëri. wàllu ngóor waaw ci wàllu ngóor a sunguf dañ ciy rax lu bëree bari léegi nag boo defee fas gi raxu dara te naturel lay doon te boo ko takkee kattan gi nga manqué woon moom moom lay moom lay indiwaat ci yow te boo lekkee lekk gu bon ala kulli boo bu dee fas fas gi ngi seen digg lekk kenn mënu laa jox lekk gu bon ba du rees lekk guñu la jox dina rees te du la wàññi dara te fas gi boo ko takkee kenn mënu laa nopp ci wàllum lekk fas gi boo ko takkee bu sa ndigg dee mett day tane fas gi boo ko takkee boo amee jafe-jafe sëy di gaaw a àgg wala yooyu boo takkee fas gi am na ñoo xam ne bu ñu ko takkee fekk tekkiwuñ ko duñu àgg mhm. fas gi nekkul nag loo xam ne dama naan fas gi fas fas gi moom euh, du ma dama ne du si wax ndax gëj naa see wax yaakaar naa te teewul la ma koy joxe jéggi na dayo mhm. damay dem mu jaag damay am jafe-jafe sax du ma xamante sax ñen laa waa jox fas gi ak ñen laa ko war a jox waaye ñi ma ko jox ëpp nañ ma si doom fu lu nekk tamit am naa ko ci mhm. ndax damay joxe loo xam ne damaa dama ko wóolu dama ko wóoru dama ko wóolu mhm. bis bu ñett nit ñëwee nag si man wala kenn nit wala ñaari nit bu ñaari bu ñëwee ci man ne mag gis ñu fas gi gis ñu suñu bopp ma bàyyi ko joxe allahu akbar maandu mënta weesu loolu ak ragal yàlla waaye nag am na loo xamante ni fii la ko ñu bëri di jëlee di ko yóbbu waaye am na loo xamante ni mënuñ cee ñàkk wax muy wàllum ndoxum siti wàllum hémorroïde ak yeneen ak yeneen yooyu dangaa ngaa judd rek tàmbale koo faj ci kër gi la la la la fekk baax moo tax am na yoo xamante ni taalibe yi sax nga koy wax ñu ñoo koy defar sëñ bi ndax eh, nekkatul dara dara nekkatul sax lu lu ñu naan nekkatul ay fowkaay la doon ci yow muy wàllum hémorroïde ak wàllum yéen ak yooyu. waaw xam nga hémorroïde dama a wax ba ñu te ñu bëree bëri ma ko. wax dëgg moo tax ndoxum siti ak moom ndoxum siti ñoo bokk moo tax damay dem a mën na maa faj hémorroïde mën na maa faj ndoxum siti du dara waaw laa daan joxe chaque jour man li ma la jox lii laa koy jox bu la neexee bu dee da ngaa nekk Europe wala yooyu dama lay jox loo xam ne boo ko yoree mën nga ko yor lu mat fukki fan ak juróom nga defal ko sa bopp bu dee ndoxum siti lii lii laa koy fajee du ma du ko li gars yi de li français di wax nit nasaraan moo ma wane kanam gi ginnaaw nii ko wane lii laa lay jox ak li ma koy booleel moom laa defee garab ndoxum siti bu dee ndoxum dafa nekk ci yow da nga koy tuur ndox ba mu jeex takk takk takk bu dee hémorroïde la nag bii laa lay jox boo ko defee boo ko jëfandikoo day dagg da koy dagg bu dee biy génn da koy rey da da koy da koy dagg ba mu deñ bu dee bu nekk si biir da koy rey si biir dagg ko togg ko si ba mu ñor ba mu ba mu ba mu seey mu génne ko xëy da koy dindi ba jeex tàkk te doo ko yëg te moom mi ñetti fan ñetti fan. boo ko yoree boo boo ko jëfandikoo même boo imurutoon tey bu mënoo jug dox boo ko jëfandikoo ñetti fan dox sa boo ko jëfandikoo tey boo ko jëfandikoo tey tey tey soo xëyee da ngay dox say ñetti fan nga tàggoog nga tàggoog moom moom mi moom bii nii ndax euh, bii wax waxoon naa ko sama yeneen vidéo yi dama see daj coono boo xam ne caaxaan taxul nit xam ko. Mhm. bii dañ naa boo xam ne caaxaan taxul ma wane ma wane ko te caaxaan taxul tamit ma wax fan laa ko jëlee ndax ñàkk naa si ay millions yi millions mu ñëw pour mën koo pour mën koo am. pour mën koo jëli ji pour mën koo am moom mii te dem naa si dem naa si fu ne ngir mën koo gëstu ndax xam-xam dafa nekk loo xam ne bu dee nit ñi ñett nit bu ñu ñëwoon ci yow dañ laa war a war a jaral jóge siin dox ba senegal ngir wut luñ lu saafara loola ndax nit ki woo la téléphone wax la soxlaam duy caaxaan moo tax foofu dama fi da nga fay ñaankat yi lillahi wa rasul nañu faj soxla yi nit ñi te bàyyi caaxaan yi nañu faj soxla yi nit ñi te bàyyi caaxaan yi ndax boo fajee ñett nit seeni soxla jërtul ngay def nga ngay ngay feeñ fenn nit ñee ñëwul seen bopp. Mm-hmm. nañuy faj soxla yi nit ñi te bàyyi caaxaan yi ñun euh, nii ñuy taxawee ci interview nga ñu ngeen ñuy ñuy laaj ñuy wax yooyu li ko waral mooy dafa am loo xam ne mun a ñàkk ndax boo toogee sa roq nit bu nekkee ci euh, ci kaw nit ñi gis ko benn dërëm bu mu lekk nit bu lewut yàq ko te nga mën sa dara yàq kooku yéen a ko ànd moo tax nag suñ génn géeg yooyu loolu la war a. bi nag yow foo ngay génne ndax euh, nit ñi ñoo lay laajte. waaw waaye moo tax waaye waaye xam nga génn gi tamit euh, njëriñ njëriñ la bariwul ndax suñ suñu jot mayuñu ko te wax dëgg yàlla tamit suñu liggéey tamit mayuñu ko. waaye nag dafa am loo xam ne yéen nag seen suñuy am na nit ku nekk da koy def ngir nit mm-hmm. yéen suñuy nit ngeen moo tax daanaka heure boo leen ñëwee rek waxtu woo ñu fekkee yàlla xam ne suba suba la màggal Mbàkke Kajoor gi mm-hmm. suba suba mm-hmm. suba suba la màggal Mbàkke xam naa di ngeen di ngeen ñëw sax ñu kii waale ngeen màggal waale ma leen invité waale ngeen ngeen màggale waale suba suba damaa xat lool lool waaye dama ne comme que ñëw ngeen rek naa naa toog wax ak yéen même sama wax ji sax boo xoolee da ngay xam ne kii wax ji mu wax wax waxi waxi wax waxi yàkkamte la kon soxla nit ñi daal moo ëpp solo lépp dañ koy faj wax dëgg yàlla moo moo ëpp solo lépp. fi may daanelee sëñ bi balaa actualité mooy ñi nga xam ne dañoo jabet am na ñoo xam ne jabet nañ ba jabet bi sonal leen lool te sëñ bi saafara saa ngi fii nii nag wax dëgg yàlla saafara si mu ngi fii moo tax ma bëgg satisfaction ci ñoom. waaw xam nga jabet dafa nekk loo xam ne euh, dafa doy waar euh, te euh, ñu baree baree bari dañoo dañoo ñu baree bari Euh, dañoo xamut euh, lan mooy jabet te jabet da ngay dégg ñaan jabet du wér waaye jabet du wér waaye nag suukar su normal bu sa suukar normalé sa jabet wér na boo dee ba sa suukar yéegul normal na ñëpp mooy sa sa sa sa lii nag moom day normal suukar. Mm-hmm. bu dee nga am te douze treize nangam treize nangam da moom fa fa ñëpp baaxoo yem fa la sa suukar fa dem du yéeg du wàcc. Mm-hmm. te waxtu lu ñu la aayee mën nga ko lekk. Mm-hmm. man damay gis nit ko xam ne day dem ba ñu war a dagg tànkam mu ñëw ma traité ko ma ma traité ko fukki fan ak juróom bu demee ñu ne ko sa suukar si normal na léegi mm-hmm. ndax jabet dafa nekk loo xam ne nit ñi dañ koo xeeb te dafa nekk feebar boo xam ne bu njëkk dañ naan feebaru noobul la maanaam ku amul doo dal léegi dafa dem ba mu jàgg dafa tas si doomu aadama yi léegi da ngay gis ki gën a ñàkk boo demee am na am na jabet ki gën a am am na jabet te jabet day dem ba indi nit ki problème jafe-jafe sëy jafe-jafe ngóoral jabet day dem ba àgg foofu da koy indi moom ndoxum siti ñooy am moo tax da day baax nit ki bu ko amee ñun tamit du ñu leen fàtte waaw koo xam ne suñu borom dogal na ne jëflante nañ si mbirum jabet incha allah dana la saafara soo xam ne sa suukar dina normal ba lépp luñ la aayoon mën nga ko lekk koo faj ba kenn ki ba duñ ko gisati waaye mën nañ koo def ba lépp luñ la da koy lekk te boo demee sa suukar doy normal loolu daal incha jigéen ñi bëgg borom kër ndax ndax ah sëñ yi nga takk bëri na waaw nga dëgg de waaw waaw xam naa nag moom góor ñaa ngi may wax ne ma dañoo bëgg ma may wax may may may wax ci ji góor ñi bëgg soxna comme ku mel ne sama benn Moussa Mbacke euh, damay wax naa ma sax sëñ bi dangaa war a si góor ñi bëgg soxna ak yooyu mm-hmm. bu xam naa ñoom tamit du ma leen fàtte xam nañ bàyyi ba beneen beneen yoon ak beneen yoon bu soobee yàlla du ma leen fàtte mm-hmm. waaye li ma mën a wax si jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg boroom kër ñàkk borom maanaam bëgg borom kër te mënoo ko am ñaari mbir da koy waral rab da koy waral rab rab mooy waral nit ki képp kum dem ba nga yaakaar ne kii maa moom sa fini suñu borom dogal ngeen am jafe-jafe doo mën a yàgg kenn loolu rab da koy waral am na ñoo xam tamit seenu seeni biddiw moo mel noonu maanaam day fiir yooyu yëpp nag bu nit ki ñëwee dañuy xool nit ki ban ban biddiw la xool nit ki li saxaar ko xool ko bu baax a baax a baax doog ko mën a wax lu ñu koy lu ñu jëflanteeg moom te ñun suñu suñu mbir ñeent fukki guddi bu ñu ko jëflanteeg yow incha allah di nga dégg boo dàqewu di nga dégg di nga dégg alxayri waaw loolu moom ñeent fukki guddi bu ñu ko jëflanteeg yow boo dàqewu di nga dégg alxayri ñu bëgg am doom tamit am doom moom dafa nekk loo xam ne ñetti ñetti yëf moo koy indi bi si njëkk mooy léeg-léeg dañu naan jigéen gi dafa jaasir léeg-léeg kii dafa am fibrom léeg-léeg ñu naan kii dafa am rab moo tax mënut a am doom waaye dafa am loo xam lu si ëpp solo dañu koy fàtte góor tamit day am jafe-jafe am doom. Mm-hmm. waaw léegi Sénégal nag boo nee am doom rek ñaan jigéen dañ jigéen lañ koy wax fekk ne góor ni jigéen di jaasire góor day jaasir da gis góor waxee du mënut am doom ndax mandiyoom mooy mooy mooy yolom. Mm-hmm. te nit ki fi muy amee doom mandiw lay doon. Mm-hmm. waaw bu léegi bu sa mandiw yolomee nag wala mu am jafe-jafe munoo fexe bi am doom bu dee góor bu dee jigéen fi borom wala yu demee ni ki noonu moom mooy tee jigéen nga am soxna sa am soxna sa am doom. léegi yow boo boo ñëwee euh, dañ lay jox suñu garab. bi nga joxe suñu garab lekk léeg dañ lay dañ lay laaj ba xam sa jëkk sa borom kër mos naa am doomam déet bu dee mos ta am doom ñu boole garab yi jox la bu defee la nga koy jox da ko jox mu lekk yow nga yow nga jëfandikoo lañ la jox ñetti weer bu suñu borom defee jàmm ñetti weer nga jàpp ëmb. alhamdulilah waaw loolu moom euh, suñu borom may nañu si te lañ koy gëstu am na loo xam nag kenn du ko mën a leeral ndax vidéo yi dafa nekk loo xam ne waxtu wu nekk la ko xale yi seetaan te ay xale lañ koy seetaan te am na loo xam ne du waxi kaw waaw ndax euh, sutura dafa baax ndax suñu borom dafa dafa sàkk euh, guddi ak bëccëg am na loo xam nag deesu ko wax ci kaw rawatina nga nekk kilifa moo tax lu baree bari duñ ko mën a leeral mm-hmm. waaye képp ku ñu woo ku suñu borom dogal ne woo nga ñu téléphone euh, ñu seq yow ci loola incha allah lañ la wax dina am te képp koo xam ne tamit ñaan ñu dama daan ñaan yàlla rek képp koo xam ne yëkkati nga sa téléphone woo ñu sa aajo norto fayu yàlla boo ñu woo ndax fa fas ñu yéene mukk mukk mukk lekk àqu jàmbur waaw loolu moom euh, képp koo xam ne woo nga téléphone te sa aaju jot fa ju yàlla boo ñu jot mm-hmm. waaw te képp koo xam ne tamit euh, suñu borom dafa dogal ne euh, waxtu wu ñuy taal suñu téléphone ak yooyu du bari képp koo xam ne tamit woo nga ñu jotoo ñu mm-hmm. mën nga ñoo envoyé lu mel ne message wala yooyu bu defee heure bu ñu amee jot dana la tontu bu soobee yàlla mm-hmm. waaye nag sëñ bi dañoo nekk ci cëppaandawlu émission bi te ku la xam ni tamit ku cultivé nga ku xam actualité nga moo tax fa la ñuy mujjee Mame ñaa Niang barki démb dafa génnoon ngay sëriñu daara yor daara di jàngale mu ni li mu jëlee ci Ousmane ko lenn la koy def mooy jox ko ñooñu daara yi maanaam jox ko sëriñu daara yi du ko yóbbu këram du ko du ko du ci jox njabootam du ci jox kenn koo xamante ni moom war na laa jàppale waaye daara yi la ci cible nen moom la koy jox sëñ bi ja wax jooju nan nga ko jàngate xam nga bu dee la ma waxoon la waxoon mooy mbirum donga donga daara moom suñu borom moo ñu bu dee nag da dañoo ñëw ci diggante Sonko ak ak président Macky nañ xam ne Sénégalais yëpp euh, Sonko defar Sénégal la bëgg président Macky defar Sénégal la bëgg euh, la gën xam naa nag du mën a sotti du mën a nekk ñoom ñaar ñu toog waxtaan waaye eh, ku mel ne président Macky li ko nit ñi di wax du loola moo am la ko nit ñi di tegal tamit du loola moo am Sonko morom ab sénégalais la nekk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi jàngee ci dëkk bi màggee ci dëkk bi di liggéey ci dëkk liggéey ci dëkk am la mu am président Macky fii la jàngee fii la yoroo fii la màggee liggéey ci dëkk bi ba yàlla def ko président suñ borom nag la muy def moom moo ko xam ka toog ak ka ka ka rek moo xam. ndax tabaaraka allazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in xadir yooyu nag euh, foofu daal lañu lañu tàggoo di ñaan jàmm am Sénégal. Euh, waaw sëñ bi balaa ngaa tàggatoo avant avocat Ousmane Sonko bi day day plainte Macky. ah kooku waxi waaw yàlla na lépp nekk si jàmm rek <laughs> waaw yàlla na nekk lépp nekk si jàmm rek xam nga politique bi dafa xaw a kii daal moo tax bëgguma si wax jamono jii ndax dafa xaw a doy waar. kon euh, ñi ngi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu. mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal tey Serigne Saliou lañ leen indil gis ngeen yàqamti gi nga xamante ni yàqamti ko waaye mënuñu mënuñu mënuñu woon tere waxtaan ak moom ndax yéen a koy gis ni mu yàqamtee ndax ñun dañoo bokk ci njabootam dañoo bokk ci lépp macha allah wax dëgg yàlla moo tax mu accordeel ñu ko rek nee na nee na nee na nag instant bi <laughs> waaw baax na sëñ bi doo toog nag ñu tëj émission bi waaw tey man sama sëriñ bi sama sëriñ la nag moo tax moo tax sama waay la moo tax mu accordel ma ko man rek la mën a accordel lii nag gis ngeen waaye nag mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di ñaan ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf